Prodac bi dinañ ko indiwaat sur la table euh, daal ci waxaat euh, topp ki nga xamante ne moo di Mame Mbaye Niang ci mbir boobu. waa xam nga man moom li may wax ñëpp di leen ko wax. Mm-hmm. mooy nga Bassirou Diomaye Faye le président la République ak le président Sonko bu dee man ni ngi may dégg. Mm-hmm. maanaam daal lu xeex toog. Mm-hmm. fayantoo. ak fayantoo. ak néewal nit doole man bu doon mën a ma ci dugg man. man bu doon mën a laa wax de bu doon mën a. ma ci dugg. bu doon loolu nga koy conseillé tamit du ci dugg. lu tax li tax mooy da ngaa réew moo xam ne barki démboo njaay bi réew bi daje ñu ne ñan ñoo fi gën a ñàkk mm-hmm. ñu ne ñu ne àdduna bi di ëpp na ñaar téeméeri réew waaye ñaar ñaar fukki réew ak juróom benn ñoom sonn nañ lool mm-hmm. dégg nga ñu ne te Sénégal ci la bokk mm-hmm. léegi nag maam maram da ngay xool réew moo xam ne dafa xiif dafa mar dafa tawat est-ce que procès moo war a nekk wéy di xeex xirul mu war a nekk ay procès nit ki nga xam ne moom da ngaa am problème am nday am bàyyi mu la xaar ci dépasse ndax yow da ngay dem. Mm-hmm. di génn bëgg a def sa métier muy xeex wala da def sa métier ngir wut loola ñu. mais bi bu ñu fàttaliku wax nga euh, Mame Mbaye Niang toogoon na fi ci dossier Prodac boobu ci la ñu tëj Ousmane Sonko 6 mois prison yoo xam ne du ko tëdd amaan ko 200 mm-hmm. moom bu fekkoon ay pexeem jub na dañuy euh, amaan ki nga xamante ne Ousmane Sonko 29 milliards yu mu koy jiiñ ba pare nee na euh, su ko amul day dem saisir li nga xam mooy këram loolu ay kàddu premier product bi yow ni nga waxee nii bu dee moom noonu la ko Sonko gisee moo tax mu war koo toppi mm. kon dèjà day fayu moom day fayu mm-hmm. dèjà xam nga wax bu baax mm. doomu aadama may faral di wax li feeg nit yaa ngi yëg sa xol ah mm, ne maanaam yaa ngi def dara ngir maanaam mer mu la daboon démb ngir nga féexal sa xol tey mm-hmm. kooku nit nekkagul nit doomu aadama bu yëg loolu rek ne man faaw ma fayu wala am na lu may neex lu may neex loo xam ne faaw ma def nit dara pour mu door maa neex mm-hmm. awma ma am naa lu may naqare loo xam ne faaw ma def nit dara lu mel lan ma def pour sama xol door a mm-hmm. kooku yàlla bëgg amagut ki mu bëgg ci yow li mu bëgg mm-hmm. dëgg la yàlla amagut ci yow bëgg am nit nit xam nga lan mooy dëgg dëgg liberté doomu aadama doomu aadama day dem ba dépassé maanaam fu ñu koy defee muy bëgg ak fu ñu koy defee muy mer loolu mooy dëgg dëgg loolu mooy dëgg dëgg doomu aadama doomu aadama day tàggat boppam defar boppam damay def seetaan barki dem ci TikTok bi benn waay bu yor benn téléphone comme dem na la dama la bëgg laaj benn question. Mm-hmm. comprendre nga donc ñii saako ko ñaa ngaa si bëgg a dóor mu laaj ko benn baay Fall. Mm-hmm. benn Baye Fall laa wax de dama la bëgg laaj benn question Baye Fall ne ko ah yow doo ma nuyu. Mm-hmm. mu ne ko jarul nuyu parce que laaj question loo ci jarul nuyu. <laughs> jarul nuyu jarul nuyu jarul nuyu. mu ne ko am na ko Fall ñu day jurit lañ ne ñu nuyonte naa ma ko naa bi man ni ni ni ma gisee mu waxee moom. ñi wax ak moom ñëpp kenn waxee wu ceeg moom parce que kooku dama dama njëkk sentir mooy kii nekk yiw moom xeex naa xolam xeex ak bakkanam ba moom yëgul ne am na benn personnalité ba dara war na ci moom wala wala dara war na ci moom dara yàlla na ci moom wala dara yaay na ci moom ba tax boo ko defee lii da ko war a naqari ngir satisfaire xolam doomu aadama mais am na ñenn ci ay ministre yoo xamante ne Euh, waaw mooy ma xam nga waaw ay ministre yoo xamante ni euh, euh, am na benn dossier bu fi génnoon fan yi ay mille milliards ci wàllum fonds force Covid 19. am na ay xaalis yoo xamante ni tamit askan wi war na ñoo xam. am lu leer ci li xam loolu xam nga loolu déjà du problème Ousmane Sonko. xam nga du problème mu la président de la République Diomaye Faye. te loolu bokkul ci li ñuy wax ëmmët bi am 2021 ba actuellement. actuellement loolu Cour des comptes moo ko def. Mm-hmm. génne na am na juróom benn milliard yoo xamul fu mu xam nga ma la mhm. loolu moom Ousmane Sonko le président de la République Bassirou Bassirou Faye mm, bu mu moom loolu bu mu nekk mhm. bu mu nekk procès moom bu mu nekk procès bu mu nekk itam option bi mu jàpp ne moo ko war a àggale du problème am xam nga ne baax du am na du am na justice kon xaar kon ci ñoom man damay xaar moo ñu liggéeyal Sénégal am na justice boo xam dañu ne pouvoir mhm. judiciaire la bu ma boppam la sañ procureur sañ jékki-jékki def li ñuy wax association euh, ngeen wax sañ def lépp nañ bàyyi procureur bu toogee ba jàpp na ñi dañ leen war a bàyyi parce que defuñ dara. Mhm. bu mu ko laaj ne ko jàpp leen. bu toogee xalaatal boppam ba ne ñi dañ leen war a jàpp. Mhm. dégg nga. bu mu ko nee bu leen jàpp. Mhm. déedéet nan nan bàyyi ba yëg ba si si yëg na ñoom ñooy liggéeyal seen liggéey ñoom. beneen bi ci dolli mooy li ma faral xam nga da gis ko wax ne day génne Mamadou Badja Camara. génne ñoom Cheikh Tidiane Coulibaly gaa yooyu. ay génne indi ay affaire indi ay Moussa ay gaa yooyu di di di relaté ñu bari mën nañ ci wuteek man gis-gis. waaye pour man gis nga ñooñi. Mm-hmm. gars yi bu ñu leen bu ñu leen nekk di ay recenser ak signé ay décret di leen di leen sanctionné bu ñu dugg ci yooyu jëru ko. gars yi nañ am grandeur rek. Mm-hmm. Barthélémy Diaz ak eh, ki nga xamante ne mooy eh, Khalifa Babacar Sall également ñoon dinañ eh, wax seen ay kàddu dinañ laaj sa xalaat ci ñoom ñaar ñooñu ndax gis nañu résultat yi génn Khalifa Babacar Sall je pense am na un virgule et quelques pour cent tey bokkoon na peut-être ci li nga xamante ne mooy coalition Yewwi Askan Wi tey jii peut-être position bi nga xam ne Karim Khalifa a na ko ci langue politique bi la nga ci jàngat. waaw li ma nga hmm, parti bi ñu sëñ Moustapha si parti boobu yi. Mm-hmm. ñu def la waa Yewwi Askan Wi waroon a def. mooy ñoom ñooy parti boo xam ni ah. Mm-hmm. mbooleem ñi kon Yewwi Askan Wi mooy ñoom ñu ko respecté bu ngoonu tey. dëgg la mosuñ cee génn. Mm-hmm. Yewwi Askan Wi da cee bokkoon ñu ne. seen sart de. ku ci bokk doo wax mag Macky ci lu jege ak lu sore saa soo wax ak moom yow génn nga ci génn nga ci coalition bi yaa ngi de dégg. Barthélemy Dias dem def ko kon kon wéyal na sart yi. Xalifa Sall daf ko violé na sart yi. Hmm, mais ñoom waxoon nañu dañuy dañuy lëkkaloo. waxuñ loolu de dañu ne nañu ànd mu ne présidentiel yi. ku nekk dem sa ku ne dem wuti wuti boppam. léegi bi ñu demee présidentiel yi. waaw pire ñoom dem nañu seen bopp. mais mu taw leen a gis foofu laay waxee. Hmm. ñoom ñoom intelligence boobu ñu doxee ñoom pire nga xam ne ñoom dañoo jaar de côté. Hmm. nañ maanaam bu ñu demee présidentiel ku ne dem wuti bu ñu demee deuxième tour ñu jàppalante. te xam nga ñoom matal nañ sart yëpp ba mu des jàppalante ci deuxième tour dèjà li ngay xam bu deuxième tour amoon ñoom ñu jàppale gars la loolu rek boobu boobu sart rek moom lañ remplir te xam nga ko fañ koy remplir dañ faa yeggut pour man mhm. Barthélémy Dias Khalifa Sall noonu la ñu waroon a def wala sax bu mënta ñàkk mhm. ba dem ci dialogue kon ak war lañ def quoi ñoom waaw ah, sax mm. mu tuddee waaye damay wax rek euh, ci fiye ak ñu mu tëddee mhm. maanaam su mun doon a ñàkk ñoom ba ñuy dem maanaam liwe ci laay nañu bàyyi nañ li nañu bàyyi Sonko te dem mu mhm. ngi li gën a garaaw Barthélemy ne Sonko il faut mu dem négocier wala il ne sera pas candidat loolu rafet même yow boo ko xamee nga war ko mën a bu mhm. beneen ba ci dolli ko mooy Khalifa Sall dem ba États-Unis am ay gars koy agre mu ne yeewu askan man maa ko taxawal yow yow defal ni amal grandeur bi Sonko am te moom façon boobu nit ku am grandeur la mhm. nit ku ku dal la kuy góorgóorlu la ci ay ay ay ay ay qualité daal di góorgóorlu daal xam nga baax façon nit ku mel noonu da ngay da ngay garder loolu lu coow bari bari wala benn waay wala moo du as suma mère jógee fa dikk jël attaqué mhm. bu mu tax ngay indi loo xam ne yéen ci mu nekk ngeen ko waxtaanee woon jëru ko ak taxaw 2STV di waxee noonu ba man bi mu waxee dama tiyaat vidéo bi vérifié na est-ce que saa Sall may wax mhm. man xaw ma woon ci moom lii diw ak diw gisee nañ ak wax leen ni du ngeen def ba gisee waxtaan am na wax leen ñu ñu naan mel ni ku am problème ci sorti sortie bu Ousmane ah, Sonko ak ah, ah. génnam ak génn yooyu xam nga mm. dèjà yooyu mm. amul solo mais après bu dul léppee so nag gars yi muy yor nguur gi loolu loolu ay détails la bàyyi nañ ko sama classe gi nga xam ne amuñ xam-xam amuñ xalaat <laughs> mm-hmm. yow le président la république joxal conseil de délégation la Barthélemy Barthélemy Dias mm-hmm. ak Khalifa Sall ak ñëpp comme considération bi ko joxoon ñëpp loolu du problème. problème yow daal da nga doon xeex te yàlla yow. mais jàppoon ni Barthélemy Dias dina am problème parce que euh, tey jii ñu bëri ñu ngi ne. Euh, Ousmane Sonko moo tax euh, tey ji mu jot ci maire ville de Dakar bi donc cette fois-ci bu fekkee gis nañu xuloo bi seen biir ndax moom sax euh, Barthélémy Dias ba muy def post bés élection yi muy 24 mars bi nga xam moom la weesu tudd wax na lépp sauf tudd turu Bassirou Diomaye Faye naam sax félicité na le le nouveau président mais tuddul directement turu Bassirou Diomaye Faye ndax jàpp nga ne ñoom buñ fi toogee dinañ ko daaneel wala boog waaw xam nga ñoom ñoom duñ ko daaneel ñoom loolu la ñuy ñoom loolu la ñuy te ma malgré euh, électorat bu Sonko la demee la demee maire bu Dakar waaye nag ci lu ci ay ci ay loi lañ ko teg ba mu mhm. dem fa ak ay règlement ak ay mhm. kon lu may faral di wax àndoon naa ak man war na ma xaw mhm. dama ko jëlee ci maire bu Dakar kooku ba tey nit kiy def loolu loolu pareegul pour nekk nit moom àndoo si yow déedéet ànduma ci Macky Sall mi toog ne suma Sonko sama wujju la damaa ko yóbbu prison kooku nit ki mu war a doon. ki mm-hmm. nit ki li war a na ci xelam na ci xolam ak grandeur bi mu war a yéeg. Mm-hmm. en tant que ci nit ku bëgg a defar dafa àggutoon xam nga doomu aadama yi dañoo bari ay istiwaay dañoo bari ay ay niveau te wuute ko da ngay gis ko xam ne moom moom moom niveau am ci insaaniya insaaniya mooy ci nitam daal ngeen ko waxee tubaab yi. Mm-hmm. niveau am ci insaaniya moom dafa dépassé. imaam imanisme moom daal. dafa dépassé tooñ. mais ku ko tooñ mu fayu am na loo xam ne moom mu dépassé na tooñ ay fayu tooñ waaye ku ko tooñ mu yëg na tooñ ko ko waaye du fayu te du tooñ mm-hmm. Mm-hmm. am na xam ne humanisme mu ak fayu tooñ ak yëg na dañ koo tooñ fu mu ne mm-hmm. fa baax ah, voilà yii nag laa ne nit da ko war a dépassé nit foofu la war a toll nit daa war a yegg ci yi moom du yëg ne dañ koo tooñ du fayu tooñ te du tooñ man foofu gis nga foofu bu fa bu fa suñu bu fa président de la république nouveau bi nekkee. Mhm. may naa la benn trois cent de def gis nga Omar Ibn Abdoul Aziz développement bi ngay dégg ci adduna bi. Mhm. ne defoon na ko fi avant muy faatu ñetti at yi manqué na de ñetti at yi mu doxal développement manqué na te àdduna la yoroon état mhm. fédéral la yoroon état fédéral. pour euh, pour nga comprendre man. Euh, Barth am na problème boo xam ne ñoom teguñ ko ko te bu fekkee ne maanaam dañ ko yéenee du nañ ko bàyyi ak problème. problème dina ko duma am na problème mooy moom dootu toog fenn ci balaa toog fi leen Dakar naan leen maa ne borom ah. ah mooy borom Dakar nag mooy maire ville de Dakar yoo xam nga mooy maire bi am doon waaxee <laughs> waaye maire bu Dakar waaw fi ne nii dañ wane ne ab ab Ousmane ko fal dëgg lañ ko waxoon mhm. Ousmane Sonko rek ko fal lañ ko waxoon mu ne falu ko mhm. bu dee moo faloon boppam lu tee moom mënut a am deux pour cent ci présidentielle sur le territoire national laa la wax xam nga gi ah. li fal Barthélémy Dias ba mu doon maire. Mhm. su ko maintenir woon képp danañ bu ko maintenir woon voix yooyu. Mhm. c' est le minimum dana danañ dem 5 pour cent xanaa. normalement que def nañ campagne. Euh, li tax moom mënul am 2 pour cent. loolu ba tey damay faral wax patriotes yi fexe leen ba ba xam ni loolu du débat ci euh, président Diomaye Faye. du du débat ci moom moom. Mhm. ay l'essentiel am du du du Barth dama abal maire bu Dakar ay l'essentiel am du Khalifa Sall nii naa ak nele te nag gis nga Khalifa Sall la mm-hmm. sant leen yàlla ci seen borom ci ci ci jëmmam mm-hmm. ndax moom dafa jaar na lu defe ne bu demee ci Macky Sall am li mu bëgg ba mu jaaroo ko mën naa bokk mm-hmm. yéen ngeen jàpp na ba ngeen demee prison am li ngeen bëgg kan la yàlla faral yéen la yàlla faral yéen la yàlla jox nguur gi bat sëñ bi dañuy dem ci Adji Sarr temps bi kii Adji mi nga xam ne dañ koo exilé Euh, jàpp nga ne Adji Sarr jamono ji euh, euh, yow sax xam naa ne